Abdelwar. Bitch, present in the future. Champagne Ghost, present in the future. Bitch, in the future. may sama koto doo bokk sama équipe ni Joseph Koto. offensif de nos dix talent bi du pour fii signé pacte bu riche. da ngeen def fuut ak champi daaji nañ juux ñu bañoon tàkk day juux na nga tëj sa taas su may duut te ñoom ñi ñu bëggoon saw dañuy puuk MK Akatsuki c'est la force on baisse ta mère à l'aise que ça torche xaw ma luy école rap gal xam na léegi ñooy boss amul lu may def ak yow da ngay tiit bu shit fëkk ñu nekk seen clique morning to play kame saxal la fit lekk sa biif loolu laa a ne xiif no bit bi dama ko kiif jaru ngay ko motif ni vidéo la motif du ma la mooy su ma damay gën may baar yi lay mandiloo nga may sig par force may teg lu diis nga may siis su la saw sa kaw sëg bi saaro ciw siis su fas yéene sax sa yuur jàppari mi passe di ko football papas xoromatuma damay fuddan rakandaw fi may daanoo dafa jugal fii ñi nga gëm dañuy tëdd may dugal liggéey di sarbone encaissé milliard rof sa MC ni may rofi ay ginaar akar tukki esen raxul ay nilaar xalam sa yur bi riime di ci gitaar bëri ay fin sa gadget waaye cekkaay cek si sa gàcce waxal booy fii nii du marché soo meree fi na jug maa arché. yéen ñëpp lañ ñëw faay sooy di gis faay woowee ñu seen baay ñu nekk diir bi yàq der bi pare wala bi tupp di laaj ay selfie delloo la sa biiru meer di sperme mu peer bi def si tunu xaj soog a dekki ndigg bu guddee ñu forote la pasiba day tàngal ndigg bu guddee ñu diw ci karité pasiba tàngal ndigg bitch. Present in the future. Champagne ghost, present